الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين mbokki jullit yi ginnaaw bu nu sant yàlla di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy fas yéene di firi téere bii nga xam ne moo nekk al axdari fi l ibadat ala madhabi imam malik ibn anas radiallahu anhuma amin mu nekk téere boo xam ne téere fiqhul islaami la su yàlla defee nit ki dégg ko dina dégg diinaam dina xam itam naka lay jaamoo yàlla ak lépp lu ci war ca farata ya ak ci sunna ya ndax moo tax mu commencé di wax ni awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasxiixu imaanihi njëlbeenu li nga xam ne moo war mu kallaf te suñu ne mu kallaf su dee ci wàllu góor su fekkee dem na ba commencé gént kooku mu kallaf la su dee ni jigéen la su demee ba commencé di gis baaxu jigéen su boobaa mu kallaf la su boobaa yàlla lépp loo xam ne lii mu ngi koy teg jaam yàlla commencé na léegi di ko ko teg maanaam commencé na di am bàkkaar su fekkee def na loo xam ne doonut lu yàlla gërëm commencé na itam di am pay bu fekkee def na loo xam ne lu yàlla gërëm la kon nit ki bu fekkee góor la bu fekkee dafa commencé gis li nga xam ne moo nekk gént wala bu fekkee jigéen la dafa commencé gis li ñuy tuddee baaxu jigéen su boobaa moo kallaf la li nga xam ne moo ko war a njëkk a war mooy tasxiixu imaanihi te mooy mu wéral gëm yàlla mu fexe ba am tawxiid fexe ba du bokkaale yàlla ak kenn su ko defee su paree ci loolu summa maarifatu mu topp nag di xam maa li nga xam ne yuslixu bihi ci lay baaxee fardu aynihi faratay boppam ndax julli fardu ayni la or weeru koor fardu ayni la asaka fardu ayni la mooy loo xam ne kenn mënut la koy defal jaamu yàlla goo xam ne kenn mënut la ko yóbbuwaaleel mais yow ci sa bopp rek yaa ko mën a defal sa bopp mu ne ka ahkaami salaati lu demee ni ka ati julli ndax julli kenn mënu koy defal kenn nit ku nekk yaay jullil sa bopp kon li nga xam ne moo war ci julli bu yàqoo naka lañ koy defaree buñ la jiitee naka ngay dabee yooyu mooy ahkaamu salaat te mooy ati julli loolu ci fardu bi man loolu ci faratay boppam yi la bokk wa tahaarati ak laab naka la ñuy sangoo farata naka la ñuy jàppee wa siyaami ak or weeru koor wa yajibu alayhi dina war itam ci mukallaf bi an yuxaafida mooy muy wattuwante ala xududillahi ak frontière yàlla yi ndax yàlla moo wax ci alquran ne wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsa képp koo xam ne dépassé nga frontière u yàlla tooñ nga sa bopp kon mu kallaf bi war na di sàmm wante ak du wattu wante ak lii nga xam ne moo nekk frontière u yàlla yi wa yaqif fa muy taxaw itam inda amrihi ci li nga xam ne moo nekk ndigalu yàlla yi wa nahyihi ak li nga xam ne moo nekk tere yàlla yi su yàlla diglee nga def su yàlla teree nga bàyyi waaye tuuba dafa war a tuub moom mukallaf bi ilallahi jëm ci yàlla subhaanahu tudd naa sellab yàlla nga tuub jëm ci yàlla qabla an yasqata alayhi li jiitu yàlla di la mere balay lay yàlla di mere nga tuub dellu ci yàlla wa shuruutu tawbati lii nga xam ne moo nekk chartay tuub maanaam condition wu tuub a nadamu moo di rëccu rëccu ala ma faata ci li nga xam ne moo weesoon li nga xam ne wees na tolof tolof yu ndaw yi nga xam ne doon nga ko def moo xam ba nga nekkee gone wala sax nga nekk mag waaye am na tolof tolof yoo xam ne daan nga ko def ci lu neexul yàlla nga tuub rëccu ne dootoo ci dellu nee na wa niyatu nga fas yéene ci sa xol ne allah yahuda ne dootu dellu mukk ila zambin di jëm ci bakkaar fii ma baqiya ci li nga xam ne moo des min umrihi ci dundam nga fas yéene ne dootuma dellu defat lu ñaaw ci li nga xam ne moo des ci sama dund wa an yatruka al maasiyata mukallaf bi dafa war a bàyyi mooy yàlla fii saatiha ci saasi in kaana mutalabbisan biha bu fekkee dafa nekkoon loo xam ne lu mu sàngoo la bu fekkee ne mooy yàllaa ngi yoon ci yow moo xam ci wax la moo xam ci jëf la nga daldi nga daldi bàyyi mooy yàlla ci saa si nga ko xalaatee ne bul xaar ba ci kanam waaye da nga koy def in kaana mutalabbisan biha bu fekkee ne mooy yàlla ci boppam loo làmba woon la wala yaxillu du dagan lahu ci mukallaf bi an yuwaxira mu yéexee a tawbata tuub jaaduwul ci mukallaf muy yéex a tuub ndax itam yéex a tuub dafa wóorul ndax nit ki xamul fan la sa fan di yem wala yaqula mukallaf bi warul taxaw di wax naan xatta yahdeeni laahu eh ma ne damay xaar rek ba yàlla gindi ma nee na loolu bul ko def il faut nga jéem a def effort waaye toog naan damay xaar ba yàlla gindi ma rek ma dog a def ndigalul yàlla nee na bul def loolu fa innahu ndax loolu min alaamati shaqaa i bokk na ci màndargay texewadi koo gis muy jéem a date ak tuubam nee na date ak tuub bokk na ci màndargay nit ku nar a dem safar wala xislaali ak koo xam ne ki yàlla ci boppam moo ko jàmbu bu yàlla bàyyi wa tamsil basirati ak li nga xam ne mooy sa lamp xol lamp xol bu fay ndax itam ab xol bu ci gëm yàlla nekki borom day sawar toujours ci loo xam ne moo neex yàlla waaye ab xol bu fekkee ne lamp gëm yàlla bi fay na kooku xalaatam du nekk ci tuub dafay dal di saaraan rek nekk ci loo xam ne lii lu naqar yàlla la wa yajibu dina war itam alayhi ci mukallaf bi xiftu lisaanihi mu wattu làmmiñam min al faxsha i ci wax ju ñaaw moo xam lu bon wa kalamil xabixi wala wax ju ñaaw wa aymaani talaaq wala ngay gëñee fase soo defee nangam wallaay dina la fase soo defee nangam wallaay dina la fase mukallaf du def loolu ndax soo ko defee jigéen dina ko def ba pare di la nattu te boo ko fase wulee am nga problème kon jaaduwul ci ab mukallaf muy toog di gëñee fase wa intihaaril muslimi wala ngay gëdd ab jullit ku gëm yàlla nga di ko gëdd wa ihanatihi wala nga di ko doyedal wa sabbihi wala nga di ko ŋaññ maanaam nga di ko saaga wa taxwiifihi wala nga di ko tiital fi gayri xaqin sharciyin ci lu nekkul dëgg boo xam ne dëggu sharia la wa yajibu alayhi dina war itam ci ki nga xam ne moo nekk mukallaf bi xiftu basarihi mu wattu ay bëtam min a nazari ci xool ilal xaraam di jëm ci lu xaraam nga moytu ndeku say bët di ci xool lu xaraam wala yaxillu lahu du dagan itam ci mukallaf bi an yanzura muy xool ila muslimin ci ab jullit bi nazaratin ci bët boo xam ne tuusihi daf koy lor jël sa mbokkam jullit di ko xool bëtu mbañeel wala nga di ko xool bët boo xam ne bët bu koy lor la jaaduwul illa an yakuna lu dul ne jullit bi dafa nekk fasiqan ab kàccoor fa yajibu te kooku sax dina war hijraanoo ko nga gàdday ko bu fekkee sa xarit la nga dagg xarit ga bu fekkee danga ko daan fréquenté bul ko fréquenté ti mais toog di ko xool bëti mbañeel nee na bul def loolu bu fekkee kàccoor la jikkoom yi muy def dëppoowul ak la ngay def nee na da nga koy bàyyi nga gàdday ko bul àndat ak moom bul toogat ak moom waaye toog ak moom wala ngay ànd ak moom di ko xool ay bëti mbañeel nee na loolu jaaduwul ci mukallaf wa yajibu alayhi dina war itam ci mukallaf bi xifsu jamii jawaarixihi mu wattu mboolem ay cëram bu fekkee jigéen la muy sol lu jot di muur ay cëram su fekkee góor la itam muy sol lu jot di muur ay cëram ndax itam mukallaf la jaadootul ci moom muy sàgganee ay cëram muy feeñ ci mbedd yi moo tax mu ne wa yajibu alayhi dina war ci mukallaf bi xiftu jamii jawaarixihi mu wattu mboolem ay cëram mastataa la mu ca man wa an yuhibba lillahi suy bëgg dara na ko bëgg ngir yàlla wa yubxida lahu suy bañ dara itam na ko bañ ngir yàlla wa yarda lahu suy gërëm dara na ko gërëm ngir yàlla wa yaxdaba lahu suy mer itam muy mer ngir yàlla wa yaamuru bil maaruf su xamee njekk mu di ko digl maanaam su xamee njekk mu di ko digle wa yanha anil munkar su gisee lu bon itam mu di ko tere wa yaxrumu alayhi dinañu araamal ci mukallaf alkatibu fenn jaaduwul ci mukallaf wal xiibatu wala jëw baaxul wa namimatu wala rambaaj te mooy yàq diggante jaaduwal ci mukallaf wal kibru ak di rëy rëylu koo gis yaakaar ne yaa ko gën a rëy yonent bi doon na wax ne laa yadxulu masalan laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqalu habatin min kibrin koo xam ne kii lu toll ne benn pepp goro moo nekk ci sa xol bi ci rëy rëylu yonent bi nee na du dugg ajam kon wal kibru rëy rëylu jaaduwul ci mukallaf wal ujbu ak di yéem sa bopp ni nga mel bu dee xam-xam nga yéem sa xam-xam bu dee alal nga yéem sa maanaam nga yéem sa alal yéem sa bopp nee na loolu itam jaaduwul ci mukallaf war riyaa ak ngistal li ngay def defoo ko ngir yàlla waaye sooy def daal na nga def pour nit ñi gis la wa sumaatu wala ngay déggale booy wax du waxuloo ngir yàlla waaye da ngay wax pour ñu dégg la wal xasadu ak kiñaan wal buxdu ak mbañeel wa ruyatul fadli al xayri wala ngay gis keneen di xool keneen ne yaa ko gën wala ngay xool lu yàlla jox nit koo xam ne kii maanaam ngay xool lu yàlla jox nit te joxut la ko loolu itam jaaduwul ci mukallaf wal hamsu wala ngay regeju wal lamsu wala ngay piisu yu sew sewaan yooyu seen yooyu nga xam ne seen yu sew la jaaduwul ci mukallaf wala abasu ak caaxaan yàlla moo wax ne afa xasibtum annama xalaqnakum abasan wa annakum ay wa annakum ilayna la turjaun yàlla mu ne est ce que da ngeen yaakaar ne man yàlla dama leen a bind ci ay caaxaan da ngeen nekk ci àdduna bi caaxaan wala ngeen yaakaar ne man yàlla du ngeen ma rendre compte kon wala abasu mooy caaxaan ak xeetu caaxaan bu munti doon baaxul ci mukallaf wa suxriyatu wala reetaan di jël ay nit romb la nga leen di reetaan wa zina ak njaaloo yàlla wax na ci alquran wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo wa nazaru ila al ajnabiyati wala ngay xool jigéen joo xam ne jigéenu jàmbur la jigéen joo xam ne du sa soxna nga di ko xool wa talazusu wala ngay bànneexu di kalaamiha ci waxam wala nga toog ndaw si di la wax ay kaddu ngay kontaan ci kaddu yooyu loolu itam jaaduwut ci mukallaf wa akulu amwaali naas wala ngay lekk alalu nit ñi bi xayri tii bi nafsin ci lu nekkul seen teeyaayu bakkan yàlla doon na wax ne wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil yenu neen bu leen toog di lekk seen xaalis ci jàmbur di lekk seen xaalisu morom ci ay caaxaan jël xaalisu nit lekk ko te neexu ko ak anam boo ko mënta lekkee te neexu ko rek xaram na ci mukallaf wal aklu bi shafaa wala ngay lekk ci intervention mën a defal nit ki dara laaj ko xaalis mu jox la nga dog ko koy defal ci loo xam ne moo xam sa place liggéeyukaay la ñu lay fay nga toog di def intervention di laaj nit ñi alal pour lijjante leen seen loolu kooku may wal aklu bi shafaa aw bi diin wala ngay lekk ci diina ci turu diina nga di ci lekk nee na loolu itam jaaduwul ci mukallaf wa taaxiru salaati wala ngay yéexee julli yéexee julli toog di caaxaan ba waxtu yu passé moo tax mu ne wa taaxiru salaati wala ngay yéexee julli an awqaatiha bàyyi waxtu wa wala yaxillu lahu du dagan ci am mukallaf soxbatu fasiqin muy ànd ak ab kàccoor wala mujaalasatuhu wala muy toog ak ab kàccoor li gayri daruratin ci lu doonul lu munta ñàkk moo xam oto boole leen ngeen bokk oto wala place comme ban wu école école bu dee élève école bi boole leen waaye daal na nekk loo xam ne daal lu munta ñàkk la waaye fekk mun nay ñàkk daal nee na bul ànd ak moom te bul toog ak moom wala yaqlubu rida al maxluqiina jaaduwul ci mukallaf muy sàkku ngër mandil mbindéef yi bi suxtal xaaliqi bay am merum yàlla nekk ci lu neex nit ñi di ko jëf wala nga nekk ci lu neex nit ñi di ko wax ba am ci merum yàlla nee na loolu jaaduwul ci mukallaf qaala allahu subhanahu yàlla ci boppam moo wax ci alquran ne wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu muminin yàlla moo wax ci alquran ne yàlla ak yonent bi ñoo gën a yeyoo ñu gërëm la wala ñu gërëm leen bu fekkee ne gëm ngeen yàlla kon li ngay def feeg yaa ngi ciy am ngërmandeel yàlla ak ngërmandeel yonent bi li ngay wax itam feeg yaa ngi ciy am ngërmandeel yàlla ak ngërmandeel yonent bi même bu la ci àdduna bi yépp mere woon itam sàkkul ngërmandeel yàlla ngërmandeel yonent bi moo gën ngay sàkku ngërmandeel nit ñi bay am merum yàlla ak merum yonent bi bu loolu nag moo ngi ko teg ci bu fekkee ne gëm ngeen yàlla ku gëmul yàlla nag moom lu mu day wax lu neex nit ñi wala muy jëf lu neex nit ñi même su ko ci yàlla meree sax pour moom parce que gëmul yàlla wa qaala alayhi salaam yonent bi ci boppam di wax ne laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaalix yonent bi nee na bul toppati ku ñu bind ba ci am mooy yàlla maanaam bul topp ku ñu bind ci luy mooy yàlla mi nga xam ne mooy mooy bindkat bi wala yaxillu lahu te du dagan ci mukallaf bi encore ay yafaala muy jëf fi alam jëf yoo xam ne muy jëf-jëf xatta yaalama hukkumallaahi fii fekk xamut lan lan la ci yàlla atte mu ne mukallaf balaa muy jëf benn jëf dina laajte ba xam jëf ji may jëf lan la ci yàlla atte su ko defee mu da koy jëf waaye tëb rek dugg ci dara ne dafa xew nekk ci di ko def te yow xamuloo lan la la ci sa diina wax xamuloo lan la ci sa borom wax itam loolu itam jaaduwut ci mukallaf soo xamul mu ne wa yasalal ulamaa nga laaj borom xam-xam yi wa yaqtadi sooy moyit maanaam sooy roy itam nga roy bil muttabiina ñi nga xam ne dañoo topp li sunnati muhammadin sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sooy topp wala sooy roy nga roy koo xam ne dafa teg tànkam fi sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam tegoon tànkam alladina te ñooñu mooy ñi nga xam ne yadulluuna ala taatillahi dañuy tegtal nit ki pour mu topp yàlla wa yuxattiruuna te dañuy moytandekuloo nit ki min ittibaa'i seytaan pour muy topp seytaan nit ku lay tegal nit nit maanaam nit ku lay tegtal nga topp yàlla nee na kooku na nga ko roy te ki lay digal nga topp yàlla mooy ki nga xam ne moo lay moytandekuloo pour nga bañ a topp seytaan te mu kallaf ci boppam wala yarda du gërëm du d'accord li nafsihi ci boppam maa li nga xam ne radiyahu gërëm na ko almuflisuuna ñi nga xam ne dañ leen a sisir ñi nga xam ne dañ leen a sisir mooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne daat sànku na réer na amaaruhum seen dund fii gayri taatillahi ci leneen lu bokk la topp yàlla ñi nga xam ne am nañ 60 ans am nañ 50 ans am nañ 40 ans mais 40 ans yi ak 50 ans yi ak 60 ans yi yépp bu ñu ko xoolee passé woñu ko ci lenn loo xam ne lii dafa neex yàlla ñooñu mooy alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sun'an yàlla mooy ñi nga xam ne seen dund bi yëpp sànku na ci àdduna bi te koo ci laaj dafa yaakaar ne la mu doon jëf baax na kon nee na loolu mukallaf warul d'accord ci boppam loolu alladina ñi nga xam ne daat sànku na amaaruhum seen dund fi gayri taatillahi ci leneen lu bokkul ak topp yàlla taala mu màgg mi moo tax mu ne fa yaa xasratahum yéemal seenuk perte wa yaa tuula bukaa'ihim yéemal seen jooy yu yàgg yowmal qiyaamati bu yowmal qiyaama nee na koo xam ne sa dund bi yaa ngi ko passé ci loo xam ne lii neexul yàlla nee na ndaw perte bu yowmal qiyaama ndaw jooy yu yàgg su yowmal qiyaama nasalullah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu tuddana sellam an yuwaffiqana mu dëppale ñu moom yàlla littibaa'i sunnati nabiyina ci topp sunnay sunu nabiyu bi wa shafi'ina ak ki nga xam ne moo ñuy rëmm wa sayidina ak sunu sang bi muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy wax ji nga xam ne moom la ñu ubbee woon moo maanaam al axbari te mu jaadu ci jullit bu nekk loolu nekk principe am mu dogo commencé nag léegi di jëf kon ñu dugg ci faslun fi tahaara te mooy bunt boo xam ne mu ngi jëm ci wàllu laab kon gis nga ba mu defaree sa roxo dafa ñëw léegi pour defar li nga xam ne moo nekk sa yaram ndax roxo dafay set nga nettoyé ko ci anam bi nga xam ne moom lañ la waxoon léegi su ko defee nga commencé nag léegi di nettoyé sa yaram pour mu mën a laab su ko defee nga mën di dugg ci xeeti jaamu yàlla yi moo tax mu ne ak tahaaratu laab te boo xamut laab mooy set nee na xismaani ñaari xaaj la dafa am lu ñuy tuddee tahaaratu xadasin laabug toj toj wa tahaaratu xabasin ak laab goo xam ne laabug tilim tilim la wala yasixu du wér du wér aljamiu yépp moo xam laabug toj toj la ak laabug tilim tilim nee na amul benn boo xam ne bii dina ci wér illa bil maa tahir lu dul ka nga xam ne mooy laablu mu jëfandikoo ndox moo xam ne ndox mu laab la ba pare al mutahiri ba pare mën a laabal wa huwa moom ndox mi laab te mën a laabal alladi mooy ndox mi nga xam ne lam yataxayyar soppeekuwul lawnuhu li nga xam ne mooy couleur bi ndox mi nga xam ne couleur bi soppeekuwul aw taamuhu wala cafka gi soppeekuwul aw raihatuhu wala xet gi tam soppeekuwul bi ma yufaariquhu ci li nga xam ne mën nay teqale ko ak ndox mi xaaliban ci li gën a bari mu ne ka zeyti lu mel ni diw diw bu duggee ci ndox ndox ma ci boppam laabul nee na wasam ni ak graisse graisse itam bu fekkee dafa dugg ci ndox mi ndox mi ci boppam laabul wa dasami kullihi ak moo xam maanaam ndox moo xam ne mii dañ cee sang fas sangitu fas sangitu jur bu fekkee dafa laal ca ndox ma nee na ndox moom baaxul wala wasaxi wala sa ndox moo xam ne mii nit sangu ba pare mu des ci maanaam ndox moo xam ne nit ci sangu nit ko jëfandikoo ba pare maanaam tilimu nit des ci nee na mooma ndox itam mënta sangu